leen nuyu di leen ziar yéen ñi sport tey ñu war a ñëween ci benn vidéo match wax ci match Sénégal ak Brésil bi nga xam ne mën na euh, mu war a am boo xam ne match bu nar neex lay doon ñoo waa Brésil sax génne nañ seen liste bi mais sa liste bi sa star bi Neymar bokk ci mel euh, bokk de ci liste ba mais laata loolu léegi dañuy wax yéen ñi gan ci page bi ngeen abonné te ngay bës ko notification bi pour ngeen ci ay vidéo au taaral fii ci no sport sama gars yi nekk ñu ñëw gannaaw ba coow li bare wax ci bari ci match Brésil bi nga xam ne war na am ci digganteem ak Sénégal mu nekk match boo xam ne amoon na Sénégal niil ak Brésil tey nag ñu bëgg a wut ab leeral maanaam euh, boo xoolee équipe bi fa nekkoon ak équipe bi am na ay changement mais changement yi tax bari léegi nag ñu bëgg xool ba xam Sénégal am na capacité mën a dóor Brésil ba léegi wala déet ba xam Brésil tamit day ñëw wan ne moo mën champion d'Afrique bi waaw ci liste nag Brésil seen liste bi génn na euh, gis ñu si stade bi waaw euh, comme ñaari booy nekk Real Madrid mii di Señor Rodrigo waaw gis nañ fa ay Casemiro ay xale yoo xam ne xale yu man ba lañ dañ ñëw ndax Neymar dafa blessé blessé boo xam ne def na 4 mois kon ak ñoom ca euh, match amical boobu du mën a nekk waaw ah, kon liste baa ngi noonu mu nekk liste boo xam ne nag ah, liste bu bëri ay star la max la boo xamante Sénégal bu jàkkaarloo bi si dóor ko wala fol fol bu rëy ci kanamam ah da gën a yokk ñoom confiance ba ñoo xam ne kon am nañ capacité pour war a mën a préparer coupe du monde bi nga xam ne mooy ñëw ndax Sénégal équipe boo xam ne fii ci Afrique impression na bu baax a baax mais dip bi nga indi yore ba léegi bu dee ci niveau mondial Euh, imposé wu bi dafa des maanaam euh, am na fa ñaari victoire ñaari defet loolu jaaduwul maanaam gën na pëlan ku du monde bi jàll mais mënut impo imposé beeg day final te pour ñu naw Sénégal ak euh, niveau bi Sénégal am dafa fa dem ba yegg day final ba yegg final ñu gën ko man a nangul gën ko mën a accorder ak champion Sénégal nag ma nga noonu xale yi nga xam ne Iliman Ndiaye moo nekk ci bopp ak Sadio Mané ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñoom Pape Matar Sarr Idrissa Gana Gueye mu nekk match boo xam ne match bu ñu bëgg la match bu ñu gëm la xale yi nag dañoo détourné guddi yi am ay temps yu doy engagé wu ñoom match bi daal jàpp nañu dañ ko war a dóor daañu def ay vidéo nag def ci ay leeral ci les pouvoir bi ak onze départ bi ak euh, milieu bi défense bi milieu bi jaar na mais défense bi attaquant yi moo tax daañu ci ñëw def ci ay vidéo spécial leeral leen ko ba nga xam ban défense lañu war a convoqué ak yenn attaquant lañu war a convoqué waaye nag défense bi dañuy njëkk bu ngoonee bu subaa ñu doog ñëw ci li nga xam ne mooy attaque bi ñu wax yéen ñi ngeen ci paal ngeen abonné te ngeen commenté ngeen partage ak suñu lien ngeen man suñu ay information au merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax